man de maa ngi lay sant ma kenn ku la sant maa ngi lay sant bu baax loolu mooy kenn wala lu tamit ndax li xam ne lu tudd ak ko jàpp ak koy jox xam nga ne sax aussi fay bu dikkee nga teew parce que war nga ab jullit la saa bu dikkee la ma jox tey boole ji ma ko moo tax ma seetaan du si bari waaw xam naa li ma wax nga dëkk yow xam naa ko te li ma doon war a war ci ñëpp war na ko war a war ci ñëpp. daal li ma dem wala mu dikk nga may ma ñëpp di ma xool. waaw. yàlla sàmm ak Pep Sall. du ko sam ñu ko toog ñu ñu ko ci dal mo sam bay ñu ñoom ñu ko mbàkk dama am loo xam ne gënam ma di ñoo man da ñoom ku ma tal loxo bëli bu fonk mo ci ba dal da doon liggéey ko do waaye ñu ñu ay ko liggéey ko liggéey ku ma xaw dina ko fonk borom da bay ñëpp do ak moom amiin amiin amiin amiin maanaam yàlla bu taxaw ko nga dema dema dema dem ba yéen ñi mën a ko defal loolu rek mën a feeñ wax naa leen mbooloo mi dañu bari bari ñu nekk jëm seen ma yaakaar ni moo feeñ ak yëg ak njëriñ rek ñu am bu ñu ko amoon feeñ doon gis maa la xamal loolu loolu ñu ko lépp ko ni ko lu amul waxee moom mooy yëpp nag genn wàll bi la ci gis waaye jël sa bu tey ba ma ay bokkoo ci rajo loolee moom fekkee am na ayib de mooy jëriñ ci suba ngoon loolu la toggoo loolu ñu bari dana ko seetlu ak jaay bokk ñoom rek tax képp. saabu saabu yàlla wax wax dëgg waaw baax na mu koy bay dama ne dama koy jaar muy Mali ma xool la waaye bu tolloo doo ci jaar waaye nag samay tànk day dem ma séen damay ngërëm ci ko dara Thank you.